ñaari soxla amuñu ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi jàpp ci daara yi doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maak ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Quran al Karim. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibin tahirin wa tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki téléspectateurs yi yéen ñi topp seen chaîne Daara Koki TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar te di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan borom bi subhaanahu wa mu boole ñu baal tey jii ci àjjuma gi 22 décembre 2023 ñoo ngi ci waajtaayu ndajam daaray kokki ndajam daaray kokki mu di bis boo xam ne nii bisu jàppalante la journée de solidarité la bisu alquran la bis boobu yi war a yemook le 24 décembre ci 2023 bi ñu nekk ci waajtaay googi nag comme ni ñu ko xamee ndaje mu jot dañ koy faral di tànnal ab thème thème boobee ñu tànnal ñu tànnaat ci ay sous-thème ci ay suuteem ren yàlla def na ñu ngi tànnoon li nga xam ne mooy rôle ak responsabilité bu jeunesse bi ci liggéeyal pénc mi waaye tamit teg ko ci njàngalem alquranul karim muy dawru shabaab wa masuliyatuhum fi xidmati almujtamaci ala daw il quraanil karim ci kaw boobu nag ñu amoon ay suutem mu bokkoon ca al cheikh ahmadu saxiir wa tarbiyatuhu alquraaniya al mutamayyiza li shabaab muy Cheikh Ahmad Saxiir Lo yal na yàlla fayal ñu ko defal ko ridwaanahul akbar yar gi nga xam ne nii muy yaru diine bi nga xam ne moom la daan def ci ndaw ñi yaru diine boobu moom lañ bëgg a ànd ak ki nga xam ne ni mooy suñu mag bi docteur Ahmed Mokhtar Lo mu indil ñu ci ak njàngat docteur Ahmed Mokhtar Lo moom nag yaakaar naa kenn dootu ko présenté ti ndaxte kenn la ci doomi daara ji juddoo fi yeroo fi jàng fi ba génn bitim réew amee fa ay lijaasam ba ci diplôme doctorat boobu yi nga xam ne mi ngi ko am ci anne année 2021 boobu yi moom docteur Ahmed Mokhtar Lo di professeur ci université bu piir di professeur ci université Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ne mi ngi Touba. docteur Ahmed Mokhtar Lo yaakaar naa daaw ci heure bi kenn ku nekk gisoon na livre bi nga xam ne moom lañ doon publier nga xam ne moom la taalif ci Cheikh Ahmed Sakhir Lo kon euh, duñ def dara dul docteur ñu jox ko kàddu gi mu nuyonteeg mbokk mbokki téléspectateurs yi kon docteur tafaddal mashkuran euh, jërëjëf oustaz Rasim Diop noo ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu ñi ñuy topp ñëpp ci Daaray Koki TV di ndokkeel alamul islami monde islamique bi ak uh, waa Sénégal ak ahlul quran ñëpp di leen ndokkeel ci bis bu màgg bi ñu jëm muy bisu daaray kokki di bisu donga daara yëpp fuñ ñu mën a nekk ci àddina bi nu ngi leen ci ndokkeel di ñaanal sun borom di ñaan subhanahu wa mu fayal ñu sun sëriñ ba sun kilifa ga sun jàmbaar ja Mawlana Cheikh Ahmad Sakhir Eh, dëgëral guddal fan lool guddal fan lool sunu waajur wi cheikh alxaaji moxtaar naar loo ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéey bi fii ci daaray kokki di nuyu waa daaray kokki yëpp di nuyu njabootuk daara ji ñi ñëw fekke fekke si bis bi ak ñi nga xam ne dañoo am ngànt ba mënuñoo fekke bis bi di ñu topp ci daaray kokki tv ñooñu ñëpp nu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel jërëjëf fadilatu docteur bala ñuy commencé sax danaa am tuuti lu ma ci dolliwaat mooy ne livre boobu bi nga xam ne moom la ñu publier woon daaw gisoon nañ ne macha allah livre bi docteur dafa lépp loo xam ne nii rek dafa jara ca livre ba ci lu jëm ci côté am da koo jël def ko ci wajaahidu kon docteur loolu ñu ngi la ci wax ne jazakallahu xayran yal na yàlla fay la waaw kon mbokki téléspectateurs yi comme ni ñu ko waxee rôlu ak responsabilité wu jeunesse bi ci liggéeyal pénc mi mais teg ko ci njàngalem alquran kuy wax ci rôle boobu yaakaar naa war ngaa wax ci yarin wi tamit ndax ki ñu yar jaarale ko ci anam gi ñu ko waral jaanale mooy tax buñ ko mooy mooy tax mu mën a xam rôlam kon docteur li ñuy njëkkee mooy Cheikh Ahmad Sakhir moom yi nga xam ne moom lañ tànn ne Cheikh Ahmad Sakhir Lo wa tarbiyatuhu al mutamayyiza li shabab wa tarbiyatuhu al qur'aniyya al Ahmad Sakhir moom lañ bëggoon nga wax ñu moom mooy kan ku yomba xamle la waaye ku jafee xamle la kenn la ci e, jàmm yàlla yi nga xamante ni dañoo tànn nekk ay murabitin ñeg ñoo xamante dañuy ribaat e, ci jaarale ko ci jàng ak jàngale ak yar doomi jullit yi mu nekk koo xamante ni yàlla da ko baaxe e, jaarale ko ci ay waajur yu baax yoo xamante ni ñoom ñëpp li ñu doon mooy jàng ak jàngale ak yarub diine mu fekk baax dëkk bee ñuy wax ñoom rek nga xam ne maamam ju ñuy wax maam Moxtar Naar loo alkabiir moom moo ko sancoon bi mu jàngee kokki ci maam Moxtar Ndumbe ba noppi euh, dëkk boobu la Cheikh Ahmad Saxir fekk baax waaye ganewu fa àddina ma ngi ganee àddina euh, dëkk bu ñuy wax Ngeer Malal nga xam ni waajuram maam Njaay Anta Silla fa la yoroon daara bi mu àdduna ci atum 1903 ca mooy atum jéerima ba ca déwén sa 1903 bi àdduna foofu daanaka dundut ak ay waajuram lu yàgg waajuram génn àdduna waajuram wu góor mu des ak waajuram wu jigéen maam Faat Ja bokk ci njabootug nja euh, njabootug maam Amari Buubu Ja ñoom tamit maam Amari Buubu Ja moom nekkoon qaadi Kajoor bu mag a mag ci atu ci jamonoy seizième siècle euh, ñu ngi naan sax buuru kajoor bu mag boobu ñuy wax Amari Ngoone Sabel moom lañ ko tuddee woon euh, ñaari penc yooyu ñoo ko ñoo ko seq bi waajuram wu góor génne àdduna doomu baayam bu ñuy wax sëñ moorloo bokkut ak moom baay nag waaye doomu baayam la bokkut ak sëñ moorloo mi mbokkal baay ñu koy wax sëñ moor faat ja bokkut ak moom sëñ moorloo mi doomu baayam la moom moo ko dalal jàngum alquran euh, daan ànd ak moom ci daara yu wuute daara yu fasante ci biir réew mi euh, yaakaar naa tamit li gën a lëng mooy ci moom la watto alxuraan gannaaw gi demaat na ci ay daara ngir beqi ak dëgëral alxuraanam fu mel ni kër Ma Anta fu mel ni kër Modou Binta fu mel ni keneen Joob yooyu yëpp jaar na fa gannaaw gi tamit sàkku ji na xam-xam waaye li gën a siiw ci daara yi nga xam ne sàkkoo naa fa xam-xam mooy daaray Ndar sëñ Birahim Joob ak daara yi nguy kër sëñ Mor Faat Caane gannaaw bi mu sàkkoo alqu euh, bi wattoo alquran sàkku xam-xam ba noppi delluwaat na ci kilifaam di turandoom nekkoon wóllëre baayam muy maam Cheikh Mbay ñu gën ko ñu xam ci Ahmadul Kabir Mbay maam Cheikh moom moo ko jox ndigalu ñëw kokki euh, taxawal fi daara ji ngir jàngal doomi jullit yi jàngal leen li wajhillaahi taala loolu ci 1939 la 1939 ci la ñëw ci dëkk bi sos fi daara ji gannaaw ba sosee euh, daara ci année 1930 yi sosoon na daara ndàll la waaye daara jooju gannaaw gi da koo da koo da koo da koo tëjaatoon ngir dem yokki aw gën a xóotalaat xam-xamu diineem noonu la ñëwee kokki sos fi daara ji nekk fi di jàngal doomi jullit yi alquran di leen jàngal xam-xam di leen yar yarub diine kilifa yu mag jaar ci ay yoxoom bokk na ci ñaari doomi sëriñam yu yu siiw yooyu ñi muy sëriñ Sambay rahmatullah alayhi docteur sëriñ Sambay ak alhaaj Jili Mbay rahmatullahi ak ñeneen ak ñeneen ci waa Kokki uh, ak waa Louga waa Ndakaaru waa Saalum waa Barñeek ñu baree baree bare jaar ci ay yoxoom ba ñi ëpp ci ñoom am xam-xamu diine am taxawaay bu màgg ci àdduna ci luy suqali réew mi kon si Ahmadou Sakhir Lo euh, boole na nekk ab jàngalekat waaye boole na nekk ab yarkat waaye bokk boo bokk boole nekk na tamit ab tabaxkat boo xamante ni da doon euh, participer ci lépp loo xamante ni day suqali réew mi lépp loo xamante ni day suqali doomu aadama ci loolu la nekk ba 30 88 30 mars 1988 ci la wuy ji boroomam doomam Cheikh Mokhtar Naar Lo wuutu ko ci liggéey bi boobu ba tey jii fépp fu waajuram tegoon tànkam mu teg fa tànkam ba waajuram bu ñëwaatoon tey du defaraat ab toogaayam ba fi liggéey bi ak si tey jii li ci ëpp gannaaw yàlla euh, ci taxawaayam la kon noo ngi ñaanal suñu boroom Eh, yokk ko wér guddal fanam lool ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéey bi moo xam mag ñi moo xam gone yi jërëjëf jërëjëf docteur mm. kon 39 mm. 1939 ba 88 donc ci la nekk di liggéeyal boroomam fii nga xam ne mooy ci daara ji nga xam ne mooy daaray kokki 39 mm. la sos daaray kokki ba 88 mu wuy ji boroomam waaye lu ko jiitu it teewoon teewul woon mi nga woon ci jàng ak jàngale. Hmm. te yaakaar naa 39 comme niñ koy faral di waxee moom année la boo xam ne nii buñ ko waxee rek année la boo xam ne day wane ne eh, ci ay ay zuruf yu metti la sose eh, daara ji. dëgg la. Hmm. dëgg la sëñ Racine 39. Euh, hmm. mooy année bi nga xam ne ci la euh, deuxième guerre bi bi ñu tuddee zulman guerre mondiale ca du guerre ay ay ay kuy ñoo doon xëccoo. boole ci ñi nga xamante ne dañoo faible. ñu tuddee ko guerre mondiale waaye guerre boobu avant lu koy jiitu amoon na crise économique bu mag a mag boo xamante ni moom mooy crise 1929 1930 1931 ñetti at yooyu mooy at bokk na ci at yi gën a métti ci ci ci ci ci bi at yooyu mooy at yi sëriñ Moussa Ka di tudde xarnu bi ba muy woy xarnu bi ci jamono di wax di wax coono coono yi xarnu xarnu coono coono yi coono yi jamono at at yooyu at yooyu la ci jublu woon mooy crise mille neuf cent vingt vingt neuf trente ñu jóge ci crise boobu euh, kuy yooyu mooy ñooñ nga xamante ni mën nañoo wax mooy puissance yi ñoo doon puissance yi di xëccoo waat di waajalaat maanaam nekkaat di préparer bu baax a baax ci arme ak yu mel noonu diggante boobu bépp 1931 ba 1939 ci waaj lañ ko def waaj xeex 1939 guerre bi déclenché wu ca guerre ñëpp xam nañ ni euh, du jur jàmm ndax euh, day day day day day day menacer stabilité waaye day menacer dundu nit ñi ndax nit ki comme li olof di wax bala nga ni naam ne fa koo xamante ni amul jàmm du mën a jàng du mën a bay du mën a commerce du mën a def dara kon at yooyu at yu jafe-jafe la at ya ko jiitu dafa jafe lool at yooyu ñëwaat tamit daanaka gën koo gën a gën a gën a yokk jafe-jafe yi jiitu woon ndax guerre moom gis nga li indi mhm. comme li shaar bi di wax zuhayr wa mal harb illa ma alimtum wa zuqtum wa huwa anha bil hadith al murajjami mata tabasuha tabasuha zamimatan wa tadra iza darraytumuha fatudrimi guerre xeex moom loolu yéen ko xamal seen bopp kutiba alaykumul qitaalu huwa kurhun lakum kenn du ko def ca ca ca bëgg ko ah huwa kenn du ko def ca ca bëgg ko kon zuruf ah, bu mel noonu ñu yebal la dëkk boo xamante ni ah, dëgg la sax ci njaamur la say mbokk ñoo fi nekk am na am say mbokk ah, am nañ fi wàccuwaay bu mag a mag sa maam ji fi la jàngewoon waaye nag loolu ci ci jamono boobu euh, jafe-jafe la ndax bokk na ci misaal ci jafe-jafe yi euh, am na jamono yooyu nee na bi mu demee ci jaba ci marché ba hmm. ma ñam fa fekkoon bi ñu ko laajee lu la fi tax a ñëw mun leen man da jàngale alxuraan moom fi mu tax a ñëw dañu ne ko ah da nga ci jóg da nga ci jóg da nga ci jóg da nga ci jóg da nga leen ah man da damaa fas yéene nekk dëkk bi comme ki ko sancoon maam Matar Ndoumé ni mu fi nekkoon. Hmm. ak sañ kokki bi mu fekkoon jamono yi sëñ kokki Madou Mariama hmm. ah ñu ne ko yow eh da ngaa bokk ak koo kooku di ab wàllu yu mag a mag a mag loolu lañ ko ma hmm. euh, beneen misaal bi tamit sëñ am Mokhtar Nalo day netta ni Abdou Diouf. président Abdou Diouf 1988 bi mu fi ñëwee. dañu sëñ Massar yow <laughs> li nga song ñu bari song nañ ko waaye bañ ko songee dañoo. dañoo daw ndax dañ bañ ko songee ba ba jafe-jafe yi taxaw rek dañoo dañoo daw kon daara moom mook jafe-jafe ñoo ànd ndax alquran gis nga inna sanulqi alayka qawlan thaqilan mm-hmm. siqal googu nag diisaay googu nag mm-hmm. dafay làmbaale lépp waaw waaw munta munta munta yomb daal munta mm-hmm. yomb jàng ko munta yomb jàngale ko munta munta yomb jërëjëf docteur waaw ah, ah. docteur euh, gannaaw dañoo tànn thème bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmad Sakhir Lo wa tarbiyatuhu al quraniya al mutamayyiza li shabab te gisoon nañ nga bind ci sa livre bi ci benn chapitre nga bind ci di wax ne ah, Cheikh Ahmad Sakhir Lo bayna tarbiya wa daawa waaw léegi nag bëggoon nañ kon xam lan mooy ru'yatuhu at tarbawiya waaw kon Cheikh Ahmad Sakhir Lo comme ni ñu wax Oustaz Racine mhm. amoon na gis-gis ci yar waaye gis-gis boobu nekkul mhm. gis-gis boo xamante ni moom moo ko fente mhm. gis-gis boobu dafa dafa dafa basé wu ci euh, doctrine islamique maanaa ci li lislaam l'islam ji sa yar ni alquran ji sa yar ni sunna ji sa yar ni ñi nga xamante ni ñoom la yenent bi jàngaloon gise ji sa yar euh, moo tax lim gis-gis boobu lim ci jiital mooy comme la ko sëriñam ba waxoon ni ko demal kooki ku la fekk nga jàngal ko ngir yàlla ngir yàlla majaaniya maanaam gratuité googu googu boobu lan lay indi ci am ci ci ci ci ci ci njàngale ci vision ci gis-gis ci yar mooy équité lay indi al insaf équité équité maanaam ñi war a jàng ñëpp jàng ca équité yaakaar na dem nañ ba ñun ci suñ réew yi ci année 2000 yi ci lañu toog su bi bi ñu jëlee bi ñu fi bi PDF bi jeexee ci lañ indi programme euh, paquet paquet paquet boobu bokk na ci équité maanaam jox chance képp ku war a jàng nga nga jàng moom moo tax da daan wax naan li gën a yeey nit ki di ci fayeeku ci kaw suuf gisuma lu gën a yeey jàngale alquran gisuma lu gën a yey nit ki di ci fayeeku ci kaw suuf ci jàngale alxuraan gisuma lu gën a yey jàngale alxuraan ci nit di ci di ci fayeeku comme ni ko uh, ni mu ñëwee ci asar ba hmm. waaye nag man dama cee amul ndigal te hmm. bu fekkoon te ni ñun ñuy jàngale ñëpp dañuy fayeeku dana bari ñoo xamee ñi mënta fay duñ jàng te ñoom dañoo am àq hmm. àq ci jàng kon insaaf moo ci jiitu beneen bi mooy démocratisation maanaam dem temps taalim fexe ba ñi war a jàng ñëpp jàng bañ a indi ay séparation wala ay discrimination ci wàll kast ak yeneen ak yeneen hmm. naan ñi ñoo war a jàng doomi ñii ñoo war a jàng doomi ñii waruñoo jàng comme hmm. niñ ko xamee woon Sénégal bu njëkk ñi ñuy tuddee doomi soxna ñooy ñooy jàng ñeneen ñi nag waruñoo jàng wala fii lañu war a yam wala uh, ñu leen di jiite ba ba ilal abat hmm. loolu bokk na ci lim gën a dindi ndax am na uh, ay uh, ñum jàngal ñoo xamante ni ba mu leen di jàngal dañ leen yéen kat seen waajur moo daan jottalil sëñ Louga sëñ Louga di wax muy jottali waaye yéen dañ leen jàngal incha allah ba boo liggéey ngeen taxaw ca Louga di wax ak di jiite ca kenn du ci kenn du ci kenn du ci kenn du ci teg baat kon loolu démocratisation la ci wàllu njàngale beneen bi mooy riayatul mawahib maanaam yi nga xamante nii may yi ñi nga xam dañoo am ay may maa ngi ne intelligence dañoo am inte xam nga intelligence yi dafa am intelligence yoo xamante ni dafa dafa ëpp dafa ëpp mesure fawqal aada hmm. waaw xam nga xamees na intelligence bu yamamaay waaye intelligence yu ëpp yoo xam ne mën nañ ko buñ ko doon buñ ko doon buñ ko doon mesurer mën nañoo wax ci ci am na nuñ koy mesurer ci ci ci ci ci ci di ko natt naan trente quarante cinquante soixante nang ah ñi nga xamante ni seen intelligence mën naa am quatre-vingt-dix loolu yooyu hmm. mu jaarale leen ci yoon woo xamante ni biñ fa jaaree dañuy teel a àgg fañ hmm. seeni objectif ca seen xam-xam day yaatu lool hmm. moo tax doomi sëriñam bi ñuy wax sëriñ Sam Bay rahmatullah alayhi ba mu fi ñëwee ci moom mu gis ko xam ni kii kat am na euh, am na am na am na lum am loo xamante ni bari na ay moroomam amuñu ko wala am na lu mu man ci njàng loo xam ne ay moroomam mënuñu ko da ko ubbil chance njàng mi jàngal ko alquran jaarale ko ci yoon woo xam moom Cheikh Ahmadou Sakhir Diofam jaarale wuñ ko ci yoon woo jaarale wuñ ko ci yoon woo waaye moom yoon woowu la ko jaarale mu teel a mokkal mhm. ndax nee na bi mu fi ñëw daa defe ne woon mokkal na waaye ca boobu mënta fëttali mënta bind sax robo waaw muy bind rebond di ko tariloo di ko tariloo defal ko muraaja ba mu teel a mokkal bi mokkalee tamit mënoon na ko jaarale moom yoon wi mu jaar defaat ci daara yi ay ati at di beqi waaye mu ni ko déedéet kaay ma jaarale la ci waneen yoon yoonu teel a dal xam-xam mu jàngal ko teel ko jàngal ko xam-xam jàngal ko li mu koy jàngal ci fiq jàngal ko ci luxa ba nee nañ ibnu malik baabul xaal la yem ak moom yebal ko tamit yemul daat ko yebal nag pour mu demaat ci yeneen daara yoo xamante ni euh, dañuy xóotal dañ fay xóotal xam-xamu diine ah, yaatal fa xam-xamam mu dem Ndar dem Mauritanie dem Tunisie ñëwaat université Dakar def euh, thèse am nekk conférencier bu mag nekk interprète bu mag nekk intellectuel bu mag a mag nekk boroom xam-xam bu mag a mag mm-hmm, waaw mm-hmm. kon ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tamit da leen a jaaralewaat ci yeneen yoon ku mel ne ay Abdul Wahab Ndaw ak ñeneen ak ñoon ñu teel a ñu teel euh, ñu teel ñu teel a ñu teel a sotti ci wàllu njàng ah kon loolu ku am gis-gis ci njàng ak njàngale yaa koy def ndax bari na ñoo xamante ni dañuy jàpp ni ñoom niñ jàngee rek lañu war a jàngale nit ki mm-hmm. beneen bi tamit duñ duñ duñ duñ duñ sàmmanteeg euh, dañ sàmmanteeg différence yooyu mm-hmm. maanaam buñ gisee dong boo xamante ni mën naa bind nisif wala mën naa bind ñu koy binduloo sumun ca loolu day rey li ñu tuddee créativité yàqutulul ibdaa uh-huh. waaw kon Cheikh Ahmadou Sakhir Lo loolu bokkoon na ci point forum beneen bi tamit euh, diversité diversifier ay asalib ay ay yoon yi muy jaarale ñi muy jàng euh, gis nañ ñoo xamante ni nee nañ nettali nañ ma koo xamante ni naqari xelam àggoon na di bind benn benn baat mu ne waaw baax na nañ ko nañ koy biir ca mujj na mokkal alxuraan tari alxuraan waaw waaw loolu nettali nañ ma ak tamit koo xamante nii ne muuma la woon waaye ca booba langue yi kii bi technique yi ñu ñu ñu fente ci jàngal muuma yi ak jàngal euh, waaw yooyu kii lool waaye jàngal na fexe na ba jàng ak doomu magam joo xamante doomu maam siré joo xamante ni Euh, dafa suñu borom da ko teel a nattoo ñàkk a gis ca boobu Sénégal dañoo jàpp ni ku gisatul rek ku handicapé da nga war a nekk ku handicap yëpp dañoo war a nekk dakaar mbedd dakaar wala Louga di yalwaan mu dégg ñu ni ma nga tëngee ci xoom waaye da koo jëlilu ba mu ko jëli indi ko fii ci kook jàngal ko alxuraan ma nu mu ko jàngale da ko booleeg benn dongo muy jànge ci àlloo ko kooku di jàng moom muy rek muy dégg ba mu mokkal alxuraan ba nekk ab jàngalekat bu ma mag kon yooyu yëpp ay yoon la yoo xam ne moom jaarale wuñ ko ci waaye moo ko fente moo ko moo ko fente wala moo ko moo fexe ba boole démb ak tey ba ba ba am loolu beneen bi tamit foofu laay jeexale mooy boole démb ak tey waaw ah, biñ demee ba année 60 yi ay école tàmbali am ci réew mi franco arabe yi tàmbali franco arabe tàmbali am publique gouvernement bi tàmbali recruter ay jàngalekat ay bourse tàmbali am nit ñi di dem monde arabe di dem ci université yi ci la dugal xeetu ba njàng ma neen ñiy jàng majalis di continuer di jàng majalis ak fiq waaye di jàng xisaab di jàng calcul di jàng géographie di jàng yeneen ak yeneen di jàng langue yi tamit lang étranger ba ñi ba ba ñi ba ñu bari ci ñi jaaroon ci yoon woowu admet nañ franco arabe ñenn ñi dem nañ ci pays arabe ñenn ñi sax dem nañ spécialisé wu ci yeneen spécialisation yoo xamante ne mu commencé di dox di ànd ak jamono yu gën a yu gën a yu gën a xool kon moom mësta mësta bokkul woon ci ñi nga xamante ni dañuy dañuy dañuy dañuy jàpp ni eh, liñ kii rek moom liñ xam rek mooy mooy lu wér hmm. waaw comme ni mu ko daan waxee eh, gileemu jamono bu yesee hmm. eh, na nga gaaw war da gaaw yéeg boo yéegul jaanu jamono dana la lugg ca bu la luggee doo am ku ko ku ko mocc hmm. ca loolu Euh, gàllankoor na liggéey ñu bari waaw ñàkk a ñàkk ñàkk a nangu ay ay changement ay mutaxayiraat tarbawiya mhm. waaw jël yenn rek def ko ay sawaabit tarbawiya maanaa yoo xamante ni war mënoo koo wees ca tarbiya ak maanaa jàng enseignement ak yooyu dafa bari mhm. ay mutaxayiraat ay ay ay changement yoo xamante ni toujours da ngaa war a fexe ba méngale say programme ak mutaxayiraat yooyu mhm. léegi kon euh, moom euh, bu ñu bu ñu sukkandikoo ci loolu dañ naan kon moom gis-gisam ci wàllu tarbiya lu lu lu sori la woon. lu sori la woon parce que yoon wi nga xam ne moom nga jaaroon nga ne yoon wi du ma ci tënku. waaye ma gisee ne ki mën naa jaar mën naa ko jaarale beneen yoon bu gën a gaaw ma jaarale ko. ko kon loolu day war ne amoon na gis-gis bu sori ci tarbiya. léegi nag euh, noonu mu daan doxale doxalin woowu. ci wàllu tarbiya. Hmm. nga xam ne dañuy gis ne am na foofu ibda tarbawi macha allah bu hmm. loolu fan la ko istimdaade maanaam ci min xilali tajaarib wala ah. min ah. xilali nusuuk an yow la dëgg la dëgg la sax Cheikh Ahmad Saxir Lo eh, jàng na eh, dem na ci daara yu bari waaye tamit eh, tukki na maanaa ndax danaan kër maa anta ba mu fay dem fakk na mu wattu alquran waaye danaan dégg maamam naan mm, su ma sañoon daal doom ju góor ju ma am doom bu dee day jàng alxuraan dana jaar kër ma anta ngir barkeb alxuraan bu dee day jàng xam-xam dana jaar ndoj sëy kër maam Makumba Njaay sëy mi nga xam ne moom lañ tudde maam Njaay eh, looloo tax mu jaar fa ngir sàkku barke kër eh, <coughs> keneen tamit déggoon na ni ñu ràññeeku lañ ci beqi ak bind hmm. tax mu jaar fa ngir jariñu fa ci ci ci ci ci njàng bind ak beqi ba tax ma ngi naan man da njëkk may dem kër euh, keneen job dama daan roy waaye bi ma jógee keneen job bu royatuma waaye dañuy roy sama loxo ngir rafet rafetaay bi dem na tamit ci yeneen daara saaluma ak Kajoor ak Bawol expérience kon am na expérience boo xamante ni jëlewu ko ci téere yi waaye jaxasoo gim jaxasoo ay xeet yu wuute dem yi dem bi mu dem ci ay dëkk yu wuute jaxasoo gim jaxasoo ak sëriñ su wuute jaxasoo gim jaxasoo ay dongo yu wuute dund na ci ville bi Saint-Louis dund na ci kaw tamit ak yooyu maanaa expérience yooyu la dajale boole kook tamit dégg na nusuus yi dégg texte yi waaw ndax ñu bari lii seen problème mooy ñàkk dégg texte yi maanaam ñu bari yi nga xam ne dañ koy jël taqdis di ko jaamu mën na am du texte waaye aw déggin la woo xamante ni dégginu texte la ca déggin woo mën naa bañ a nekk déggin wi wi jub wala mën naa nekk déggin woo xamante ni bari na lu ci manqué kon moom looloo tax mu mën a mu mën a mu mën a fente lii ndax mënoon na euh, bi euh, Oustaz Mor Kotiari euh, rahmatullah alayhi bi mu demee Franco ñëw gis ni EPS ak yooyu dañ leen koy dafa bokk léegi ci examen yi muy génnee xale yi di leen génnee di leen maajloo ñuy maaj di santé wala wansafat a hammi asfa di kii mu ñëwee mu ni ko mu waaj ko mu ni ko waa lii ci la bokk da da koo nangu ak yeneen yeneen kon moom nekkul woon koo xamante ni day day day day day day bañ lu nekk da doon bàyyi xel ñii xam ni ñii dañuy niru ji seen jamono hmm. waaye mën nañ koo bañ niru ci lépp waaye seen jamono ci ñi ci niru seen jamono ëllëg moo gën moo gën ñu niru seeni waajur ndax bu ñu niroo seen jamono danañ mën a adopté ak réalité wala ay changement yi nga xam ni yëpp day day day day gaar ca yooyu nekk changement yoo xam ne day day mooy definir ëllëg seen seen seen seen seen seen chemin seen yoon mooy définir definir tamit seen seen seen destin seen masir mm. waaw kon loolu daal foofu la ko foofu la ko jëlee foofu laa jàpp ni fa la ko fa la ko jëlee. Hmm. léegi nag maama kon shabab fi hadihi ruya waaw léegi gis gis su xale moom <laughs> sëñ ma sax tënkoon na ko ci ay ay ay ay ay baat yu gàtt. Hmm. bi ci it mooy fii daaray xale la. daaray xale waaw daaray xale. Hmm. kon ku daan dóor ku wala noggatu kenn danaan la fii daaray xale la. waaw waaw koo xamante ne da bëgg. Ah, yilifaate comme ni ngay yilifee sa kër wala naa mais boo nga dem seeti faneen foo ko defee waaye fii moom. kenn yilif fi kenn daaray xale la maanaam wàccuwaay bi fi xale yi am. mag amu ko fi waaw fii daaray xale loolu moo jiitu kon jox na xale yi e, e, wàccuwaay wu rëy woo xamante ni. mag sax amuñu ko nit daan na dóor magam daan na dóor rakkam bu ñëwee mu rakk ji fayyu waaw rakk ji xam ni kon e, fii xale yi ñoo fi ëpp wàccuwaay <laughs> beneen bi. daan na wax bu may lebal man xale laay lebal waaye duma lebal mag waaw waaw du lebal mag ndax mag ku dem mu dem ku demul mu dem waaye xale moom moo fi nekk ëllëg xale bi moo fi moo fi des ëllëg kon bu may lebal xale laay lebal kon ittewoo xam beneen bi tamit daan na wax naan xale yi euh, euh, wattandiku leen di noggatu xale yi walla ngeen leen di sonal wala ngeen leen di mettital ndax xale yi ñu nekk danañ génn ci ñoom ëllëg xale yi ay kilifa diina yu mag danañ ci génn ëllëg xale yi ay wutkatu alal yu mag danañ ci génn xale yi ay imaam yu mag ay waroom xam-xam yu mag ay njiiti réew sax danañ ci génn ëllëg kon na ngeen wattandiku sonal xale yi kon amoon na li ñuy tuddee gis-gis ci toppatoo xale yi maanaam hmm. tanwiyal bachar yi développement humain cadre jàppee xale yi li ñuy tuddee léegi cadre Euh, cadre humain wala li ñuy tuddee euh, ressources humaines waaw ca loolu terme boobu ci sociologie ak kii terme boobu gannaaw gi lañ ko la siiwal fii Sénégal sax bu njëkk ressources humaines amu fi woon boo demee léegi ministère boo dem wala kii da ngay ñaan gestion des ressources humaines mhm. boobu du personnel lañ ko tuddee woon bu njëkk boo demee éducation gi lépp personnel lañ doon wax gannaaw gi lañ kii te moom ba muy ba muy ba muy gis ji ba muy yor gis boobu boobu jiitu na yaani administration bi sax di di di di di di di viser li ñu tuddee ressources humaines euh, wala yu mel noonu kon moom loolu da ko da ko mel beneen bi tamit musta nangu ni euh, xale yi dañoo bon dañ leen di sànni kenn du sànni maanaa sànni maanaam kuñ abandonné maanaam waaw hmm. kuñ jaarale yoon mu jaar fa euh, dafa am oustaz Khalifa Seck sëñ Khalifa Seck rahmatullahi alayhi euh, euh, yàlla na yàlla euh, gën a guddal fanam day nettali mu sëñ Alpha day nettali ni bi ñu ko fi indi dafa am jéng buñ ko fi indaale woon jéng boobu jéngub la moom lañ ko indaale loon sëñ Masta ni ko jéng ndax kii nag ma sëñ ma jël de jéng ba denc ko ci suufu laal la ay kilifa bëggoon defu ko ba sëñ xalifa toog jàng ba mokkal sëñ ni ko bu sëñ xalifa bu ma kenn dégg maag yow waaw sëñ xalifa toog jàng ba mu ba mu mokkalee ba ma si la ko sëñ bi doo ko won ni ko jéng bii da biñ biñ koy indi dañ ko indaale woon waaye du beneen bi euh, alaaji as ndaw mi doon inauguré sànq rahmatulah joteeg nijaayam ca côté ca Kaffrine hmm. nijaayam yanu ko ënni hmm. bi mu ñëwee sëñ ma ni kii lu ne lay def ci kaw suuf nañ ko tëj nañ ko dàngam alaaji as ndaw ni sëñ bi ndax mën nga waa may ma wax ca booba xale bu ndaw la mu ni ko waaw dé mën naa la may mu ni ko gis nga sama nijaay ji ay doomam a nga fa ca fële leen bàyyi <laughs> ma nga fa bàyyi ay doomam da li muy wax lépp ay doomam nga fa indiwu leen waaw waaw sëñ bi ni ko ah, ah, as ndax buñ la bàyyee ci biti da nga mu ni ko danaa jàng sëñ bi ni ko nu kenn la dugal daaru salaam ñu bàyyi ko ci biti mu jàng bi mu jàngee ba bay bëgg mokkal Euh, xam nga fi mu fi tollee fi mu wàcc wàcc xawa sonn xaas xaasim Guèye mu mu mu mu euh, Baye Babacar Guèye xaas xaas ku siiw la ñoo jàngu xaas Idrissa ñoom ñi ñëpp ci moom lañ soqi ko xaas euh, ca mujjoon nekk keer dëkk ngin gi neew xaas sonal ko ay as ndaw boole ji ko walla as ba mu boole jee sëñ mat Euh, woo xaas bëgg ko tàqaleeg moom ba buñ ko kiyee ba bëgg ko as daal ni sëñ bi man nga maa déglu ma ma joxe mu ni ko lan la mu ni ko ah damay bañ nga tàqale ñu waaw dëgg la door na ma ak lépp waaye waaw waaye ndam li damay bañ ndam li keneen jël ko ndaga maa ngi bëgg a tari ba mu ba waaw loola tamit def ko loo xamante nii baat booba suñ kon mu nekk koo xam ne doon déglu xale hmm. teel leen a jox responsabilité fi laay jeexale masuliya waaw ah, ndax daa jàpp ni responsabilité alquran ji responsabilité seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ñu ko wax wa innahu la dikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluna tusaluna tusaluna googa waaw tusaluna responsabilité waaw mu teel a jox xale yi responsabilité e, ñun ñi bi ñuy jàngale téele booba ay dix ans la ñu am wala lu ko manqué tuuti ngay jàngal ñoo xamante ni eh, ñu ngi am mm-hmm. ay sikkim wala ñu ngi ñu ngi mën nañoo samp kër mm-hmm. maanaam xale bu tuuti yilif ñooñu di leen di leen jàngal waaw waaw lu waaw lu ja waaw lu jafee gis la jafee gis maanaam teel a yor responsabilité mm-hmm. dix ans nga tàmbali ci responsabilité yor di yore xalqa di di diriger di na di ki loolu boo ci màggee ah, boo ci màggee ëllëg boo yoree kër gu liggéeyukaay. waaw ah, moo tax bari na ñuy wax naan eh, ñi jàngee ci daara yi daal jaaxal nañ leen bu ñu ña ngi embauché ñeneen ak ñeneen ak ñeneen waaw ah, daa fekk eh, waajtaay on a formation bi teel teel lool maanaam ñi teel leen a responsabiliser maanaam bañ ñi xam ni ñuy saytoo nit xam ni ñuy yore nit xam ni ñuy ndànk ndànk ba màggaale ko kon loolu moo. ënli réussite gi nga xamante ni ñu bari ci ñu jóge ci daara yi dañ koy réussir bu ñu taxawalee ëllëg lu ñuy taxawal moo xam këru liggéeyukaay la moo xam daara la moo xam école la moo xam tool la moo xam lu mu mën a lu mu mën a doon kon daal Cheikh Ahmad Sakhir bu toogoon fii di waxta di wax gis-gis bi mu am ci gone ak gis-gis bi mu am ci ñi nga xamante ni ñooy ëllëgi réew mi Euh, buñ toogoon fii di ko wax mën nañ fee toog fii ba suba ca duñ fi. Mm-hmm. dañ fi jóge mm-hmm. waaye nag lii lenn la rek ci li nga xamante ni. Mm-hmm. genneeku naa ay genneeku la yoo xamante ni. jële naa ko ci aw yoonam wala méthode am ngir gaaral ko jërëjëf. jërëjëf Farid Fadilatu docteur. kon la sant di la gërëm di la jaajëfal ci bi xam nañ ne fan yi xat nga lool. Ah. waaye nangul gi ñu nangul ci. ñëw defal ñu ak njàngat ci li nga xam ne mooy thème bii di Cheikh Ahmadou Sakhir Lo wa tarbiyatuhul qur'aniyya al mutamayyiza li shabab mm-hmm. loolu dañu ci jaajëfal bu baax a baax euh, macha allah euh, tont yi am na solo leer na lool leer na lool ndax dikkal nga ñu ci li nga xam ne mooy euh, Cheikh Ahmadou Sakhir Lo mooy kan dundam jaar-jaaram ak euh, ñëwal nga ñu tamit ci li nga xam ne ni tamit mooy wàllum euh, gis-gisam ci wàllu tarbi nga xam ne gis gis-gis bu sori la hmm. rawatina tamit loolu nga ci tudd muy wàllu insaaf muy équité bi nga xam ne maanaam fexe ba yamale fexe ba euh, bañ a jël wàllum njàng ne ñii rek ñoo war a jàng ñii waruñoo jàng nga xam ne loolu dañuy gis ñoo xam ne ni seeni imkaaniyaat demewut noonu bu fekkee ne ku sa loxo jurul jurul sa gannaaw doo doo jàng loolu day daal doy waar te moom mu doon ja boole ñëpp di leen jàngal li mm. wajhillaahi mm. kon kooku yàlla na yàlla na borom bi subhaanahu wa taala fay ko ridwaan ko mm. gis nañ kon ne moom ku daan yërëm xale la waaye ku daan jox xale yi seen aq la ndax euh, ni nga ko waxee di déglu xale déglu kii naan ko naan ko sëñ bi ndax mën nga man nga ma mën nga ma wax ndax mën nga maa déglu kon loolu tamit maanaam fi mu toll ne am na am na am na lu muy wone Euh, gis nañ tamit ne responsabilité maanaam comme ni nga ko waxee maanaam dafa déggoon texte yi hmm. dégg dégg bokk na ci dégg texte yi mooy fexe ba tatbiq lii wa innahu dikru laka wa li qawmika sawfa aloon hmm. maanaam yëg yëg responsabilité hmm. mais aussi tamit ni mu doon jàngale ni nga xam ne noonu la doon jàngale euh, ndaw ñi pour ñu mën a teel a xam responsabilité maanaam di leen ci tàggat nga xam ne waa ji ni muy yore ab jàngu ni muy yore ab liggéey bu ñu ko dénk mm-hmm. nga xam ne ëllëg ak si biir bu yoree société bu yoree kër leneen lu mën a yor mm-hmm. day fekk ne lu mel nii tàggatoon nañ ko ci lu ko xaw a nuru mm-hmm. ba du am benn jafe-jafe kon jazakallahu xayran fadilatu docteur kon euh, mbokki téléspectateurs yi moo nekkoon euh, docteur Ahmed Mokhtar Lo doon ñu indil ay leeral ci thème bi wala ci suu suu thème bi kon ñu delluwaat ko kàddu gi jërëjëf oustaz Racine noo ngi euh, dollu di sant bu baax di sant commission culturelle bi nga xamante ni ñoom ñoo taxawee lii ci njiital oustaz Aliou Badara Cissé di sant bu baax a baax tamit waa Daaray Koki TV ñoom oustaz Abdou Qadir Seck ak mbooleem ñi koy jàppale ci liggéey bi mhm. di sant tamit sun réalisateur yi ñoom euh, Mbay ak euh, gu ak euh, mboolem ñi koy jàppale ñoom Mohamed ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu fële ci régie ak ñeen ak euh, mbokk yi ñuy topp yëpp ci Daaray Koki TV euh, di ñaan képp koo xamante ni waaj nga ba fas yéene ñëw Koki ñëw ak jàmm ah. fekk fi jàmm delluwaat ci say mbokk ci jàmm di ñaanal comme ni ma ko tàmmalee woon Cheikh Ahmad Sakhir Lo boroom yàlla na ko fay yàlla nañu ko fayal hmm. defal ko ak akbara gi nga xamante ni moom la doon ñaan hmm. di ñaanal alxaaji Moxtaar Naar Lo ak mbooleem ñi fi nekk ñëpp di ñaan képp ku fi nekk eh, yàlla la sun boroom defal xam-xam képp koo xam ne yaa ngi fi di jàng ca xam-xam boobu yàlla na barkeel yàlla na ci jariñ sa bopp man cee jariñ réew mi man cee jariñ ummal islaamiya bépp tamit di ñaan tamit eh, Cheikh Ahmad Say Lo lam ñaanoon muy fii nekk xetalikaay mu mujjig jamono mm-hmm. yàlla sun borom def ñi fiy jóge ñëpp nekk ñoo xamante nii mm-hmm. dañuy participer ci xeetali jamono bi nga xamante ni xaw naa jaxasoo xaw naa rëpp hmm. waaye nag teewul ab jullit moom lu jamono jaxasoo lu jamono rëpp rëpp day gëm waxi yàlla ja rek hmm. jam waxoon ni inna al arda yarisuha hmm. eh, min ibaad ibaadi saalihun wa laqad katabna fi zaburi min baadi zikri anna al arda kon euh, noonu la ñuy euh, euh, tàggatoog mbokk yi di leen joxaat di daje ci yeneen programme ak yeneen waxtaan yi nga xamante ni fas yéene nañ ko amal suba gannaaw suba incha allah fii ci daaray Koki TV. jërëjëf jërëjëf docteur Ahmed Mokhtar kon mbokki téléspectateurs yi comme ni ngeen ko gisee. mi ngi noonu di docteur Ahmed Mokhtar Lo nga xam ne moom actuellement moom mooy directeur de directeur de l'étude bu institut islamique de Koki kon moom lañ àndaloon ci thème bi nga xam ne mooy Cheikh Ahmad Sakhir Lo yare nu diine bi nga xam ne moom laan yare ndaw ñi waaye tamit mbokk yi ñu ngi leen di di daje ci yeneen palaato yeneen émission lépp ci waajtaayal ndajam daaray Koki mi nga xam ne nii ñu ngi ko dëgmal mu war a nekk dimanche gannaaw suba incha allah di 24 décembre 2023 incha allah kon ñu ngi leen di dig daje wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak sunu mbir mépp mépp mépp daal ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daar yi nañ jàpp ci daar yi rawaat naag doomi daar yi jaar ci daara yi yi daar yi teraang yi leen yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maak ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Qur'an al Karim